souvenir la ñu euh, président Wade lan moo nekkoon seen relation yéen euh, euh, baay la suma xarit la te président Wade a été euh, quelqu'un que j'ai beaucoup aidé quand quand il dans l'opposition dama leen di raconter benn anecdote bu gàtt rek. Mhm. bi ma ñibbisee jóge France dama fekk fii soppi mais tàng jër. comme ni ni ni ni Yewwi mel di euh, euh, Dakar di aujourd'hui soppi noonu la meloon peut-être même plus encore euh, Ablaye Wade faisait l'actualité euh, bi ma ñibbisee monté suba imprimerie c'est une vieille histoire c'est comme ça que j'ai connu Ablaye Wade dafa yoroon journal Sopi ñu dégg ne que man ubbi naa benn imprimerie Ousmane Ngom moo ma ñëw seet je ne le connaissais pas Ousmane Ngom Jean Paul Diaz ak. Euh, waaw le père de ba ba ba Barthélémy Diaz que je salue au passage ñoom ñoo ñëw seet si ma ak euh, Khoureyssi Khoureyssi Ba. Khoureyssi Ba maître Khoureyssi Ba. Euh, qui un grand membre de du PDS. ñoo ma sert si woon pour mu proposer de tirer le journal et j'ai accepté. moi oh, je moi je l'ai beaucoup je l'ai beaucoup soutenu je l'ai Euh, les gens voulaient que j'arrête le journal j'ai pas le journal j'ai pas j'ai l'ai fait finalement ñu may ma jàmm ñu bàyyi ma continuer ci journal soppi bi je l'ai tiré ba keroog bi ma demee ba sonn ma bàyyi parce que la pression était euh, trop trop trop forte donc depuis lors nag maintenant nag j'ai eu de très bons rapports avec avec Ablaye Wade y compris Ousmane Ngom y compris Jean-Paul Diaz euh, ak euh, ak